Baol Médias xibaar yu wér te wóor julli mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci kër ñang ci kër Baye Mourtala Jaxate ñoo ngi bàyyi ko ba Xur Mbàkke ànd ak xalif sëñ bi Jaxate sëñ Abdoulaye Jaxate am waa njaw sëñ bi Jaxate gépp sëñ mbéyum suñu saa xalif sëñ bi Jaxate ak xalif sëñ di seen mbokkum taalibe sëñ Soñ Jaxate waaw ñoo ngi fi ñoo ngi wax nag ñoo ngi kàddu gi ci turu sëñ Abdou Diakhaté mi xalif sëñ Bay Diakhaté di nuyu suñu baay bii di sëñ Murtala Diakhaté mi nga xam ne mooy xalifa Mamadou Xali Diakhaté ci jamono ji tey jii di siyaare mboolem mbokki taalib yi fi teew yëpp di bàyyi ko ay Numaan Diakhaté ak waa Touba yi ak mboolem fu waaye maanaam jógee ñëw ngir bis bi noo ngi lay eh, siyaara di la masoo coono di balu àq di leen balu àq di sant bu baax tey eh, sant ci teew gi ñu teew ci bis bi nga xam ne suñ maam ji mu àndoon ak suñ maam sëñ bay jaxate Mamadou Xali jaxate di koo jege woon lool ku jàmbaare woon lool it ñu bokk benn bàyyi waaw joxoon ko léppam ba nga xam ne dundam gépp ci loolu la ko jeexal liggéey jàmm yàlla ak doon rek waaw fi des nag kii jeexee itam di ay sëtam ak it doomam si Mourtala Jaxate mi fi nekk di doomam ñooy taxal bis bi muy lam solo fàttaliku ku baax ndax dañuy wax ne bu ñu fàttaliku ku baax su borom day wàcc yërmande waaw inda sikri saalihin tansiru rahma loolu euh, arab yi wax kon nag bis la boo xam ne bés bu mar teewee la ñaan su borom dëppal ñoo tawfeex bis bi ak ngërëmul bis bi ak ngërëmul borom bi di mboolem njaboot Mamadou gi fi teew yëpp góor a jigéen mag a sant yi ñi nga xam ne yéen a ba Mbàkke Bawol ñëw fi di ko jël euh, seen média bi ñaan su borom barkeel seen média bi foofu mu bëgg àgg mu àgg fa su defal leen tawfeex desir ñaan daal suñu borom ñu yàgg ko teewee très bien teewee Cheikh Abdoulaye Diakhaté mi ngi siyaaree suñ baay bi si matulaa bu baax di ko di ko léegi doxoon ca diggante maam bi xam ne lu solo la kon ñu ñu ñoo ko di ñoo ko war di dundal fu mu rek ñoo leen sant gërëm ñaan ñu yàgg ko teewee très bien teewee suñu borom de sir waaw di sant ñaan yi ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi teewee lool ak murid yëpp ak julli yëpp loolu daal daanaka mooy kàddu yi nga xam ne moom mën tënkoon di ko di ko euh, jottali di siyaar yëpp nag bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn góor ñi mag ndaw ñaan suñu borom defoon tawfeex reseer ñàkk ko teewe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu di jaar mboole ñi nga xam ne ñu ngi euh, dégg suñu kàddu ñu tàmbali ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifatul am di nuyu bu baax di siyaar Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne moo fi toog tey jataayub euh, sëñ Mouhamadul Xaadi waaye mën nañ itam mbokk ci njaboot yi nga xam ñoom mag tey ci njabootu maam Xaadima Jaxate Kala allazi alallaahi tawakkala ñu ngi koy beral ak nuyoo di ko sant bu baax te di ko ziar bu baax a baax di sant bu baax di sant mboolem ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci bis bu màgg bi nga xam ni moom lañ doon fàttaliku tey jàmbaar ju màgg ji di Cheikh Mouhamadou Khadi Jaxate nga xam ni mooy rakki sëñ Bay Jaxate da nga xam ni waaye juróom bu jigéenu di soxna Ndaak Mbay moom la amoon wala wu mag a Cheikhul Khadim ba nga xamee ni ku baax ki ñëw na foofu ca Kër Makala doon jàng si alxaadi ma jaxate kala boole woon ko moom mu daan ko toppatoo lu to diirum ñetti at yoo xam ni lu ku baax ki mos a jëfandikoo ci wàllu ñam wala naan ci loxoom la daa jaar di soxna Ndang Mbay moomu loola taxoon ba tax doomam ji di Cheikh Modou Khadi xeme moon ko ba ginnaaw bi fi bàyyam jógee ginnaaw 1900 mu laxasu woon ngir fekk di ko ci ndigalu waajur mu jigéen woowu di soxna Ndaak Mbay ba fekk Sëñ Tuubaa ca Jolof fekk fa magam ja Sëñ Mbay Jaxate mu ànd ak moom ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa ca Téyeen Jolof ba dañ fa jógee ca Njaareem ba ñu ñëwee ca Xur Mbàkke ba ñoom ñaar mën nañ ñi ñoom ñëpp ñu mujj ba ñu génne àdduna ñu denc leen foofu ca Xur Mbàkke bis boobu lañ doon fàttaliku tey euh, di ñaan yàlla rek ñi ci ñëw ñëpp suñu borom yàlla ñu ci dajee ngërëmul euh, Sëñ Tuubaa te amee nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax moom kat suñu Tuubaa seeraloon na ko ay jikko yu mag a mag ndax ginnaaw ba nga xam ne am na ay xew-xew yu amoon mu taxaw ci taxawaayu kilifa suñu Tuubaa ku baax ki waxoon na ni ku amu fit la waaye ku ku jàmbaar la waaye ab euh, murid saadix la loolu nag seede ju réere la joo xam ne ku baax koo xam ne ko ci moom kon daal euh, ñu ngi ñaanal mboolem ko fi teew rek yow la sëñ ba jaxate waxoon ne ko yàlla nga am yiw wi bérex te du fay yiwoo képp ku woon ci ñëwoon ci bis bi rek ñu la ñaanal yiwoo nga am ko ci barkeb alxaadi ma jaxate kala di waajuram ba waaye barkeb sëñ bay jaxate ba magam ja ak barkeb sëñ moodu xaali jërë ngeen jëf wasalaamun ala man ittabaal huda salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaare bu baax mbokk yi di di leen baalu àq xam naa di am kontante bu baax ci laaj bi muy màggal geeg taxawaay yeeg nu mu demee ma màggal gi Cheikh Abdou yi mi jiitu wax na ci lu am solo mooy sabab bi ko waral muy Cheikh Mouhamadul Qaadi Jaxate ibnu Xaadima Jaxate Kala lañ doon fàttaliku di ko ñaanal ci bisam bi mu ñaar fukk ak juróom yi ci weer wii ndax ak ñaan la dañ ko ci ñaanal borom bi subhaanahu wa taala doolu ko yërmande ak njëggal bu ko defee liñ ci baaxoo def biñ xëyee jàng nañ ci alquranul karim def ci ay bernde def fi aw waxtaan wu am solo ci wàllu mbokk ak jokkuk mbokk def ci jëkkatim xasida euh, loolu mooy bisu màggal gi màggal gi nag yàgg naa am si Mouhamadul Misbaahu Jaxate mi aw taawam moo ko yàgg def tàmbali ko di ko def di ko def muy yokk di yokk ba ñu ngi fi jugee rakkam si Mouhamadul Mourtada di ñaan borom bi yàggal ko fi lool ko continuer bañ egg fii ñu egg kon day mel ne màggal gi am na tànk kanam yu baree baree bari ndax euh, biñ ko biñ koy tàmbali euh, ci lu néew la tàmbalee woon tey mu toll fii mu toll kon mat naa sant yàlla bu baax a baax a baax tey ñaan borom bi tamit mu gën ñu ko yàggalalal di soññ mbooleem sët yi ñu gën a góorgóorlu te gën a am passé bu baax ci màggal gi gën cee def seen lépp comme ni ñu koy defee nii ñu gën koo yokku ndax yàlla daa bëgg kuy def lu te yàlla day fay lu baax yàlla ku lu baax dina la ko fay kon ñun ñëpp dañuy góorgóorlu di gën a yokk suñuy jëf rawatina ci bis bi asalaamaaleykum wa rahmatullah Baol Média xibaar yu